Khadija mooy ci combat Balla Gaye Modou Lo bi. Mm. waaw combat la mais ci la ñuy xam ndax ñoom ñaar parce que da xalaat leen. Mm. combat bi Tunkara am na huit ans ou neuf ans. Mm-hmm. Mm-hmm. xale lañ woon boobu. te ay xale lañ du woon sax ay vedette. booba Tyson Yékini Bombardier. Mm-hmm. ñoo fi nekkoon ñoo fi nekkoon. 40 millions lañ leen fayoon ci combat bi ñu koy bëree Luc Nicolas moo ko tëggoon 2S moo ko liggéey. combat boobu kenn dootu ko fa mais popularité boobu mu amoon. moo moo moo leen dundal ñoom ñaar ba fii ñu toll nii. li leen làmb boobu mayoon moo bari woon. ñoom ñaar ñëpp mu doonoon combat bu def ñu nekkoon ay xale. et puis Modou Lo ñëw bëri ko bëri boo xamante ni day daanu ku ko bëree bu ko bëree waatee it dafay daan waat. Mm-hmm. moo tax léegi il faut mu changer. sa pronostic lan la. sama ñemewuma koo wax. Hmm, lu tax koo ragal mënuma wax fii ni diwee daan no bu dee favori dama xalaatoon peut-être gay doon favori. Hmm. waaw parce que naa bëri de li mu jaar yëpp gëj naa bëri ci daal moom a loolu sama ah, xel ah, ci li mu jaar yëpp mais comme que moom jot naa nekk sax roi des arènes mu ñëwee kam parce que gis nañ ci face to face bi taxaw ngeen yéen ñaar état bi nga xamante ne moom la ñëwee ak état bi nga xamante ne moom la bëree ak combat am ak Gris Bordeaux am na différence waaw am na différence mais. yére la sol mais yaa ngi chose aussi gis nga gis nga mbër bu taxaw ci sa wet ak mbër bu taxaw ci géew du benn. Mhm. dafa am différence bu mag. wax na la lu wér. waaw mbër bi mën na taxaw nii buy jóge këram entraîné jàpp forme ñëw taxaw mais jour bëri ak stress bi nekk ci combat bi. Mhm. ci la ñuy xam kan mooy champion. est-ce que bon gëj na bëre bëri naa Gris Bordeaux pendant 40 minutes xaw ma 30 minutes am na victoire. ci Gris Bordeaux te pourtant Gris Bordeaux ak jëlul euh, ko wax gàddaay deful woon fenn. mi ngi fi mm-hmm. Mm-hmm. mais Balla Gaye. waaw ah, mais xaaj bekaay man tamit am na benn laaj mbër yi dañuy dem di préparer ay États-Unis ay Espagne ay France mais mais mais loolu. pourquoi du ñàkkal ñu xorom ñun. Mm-hmm. waa ci la bokk. Hmm? parce que damaa yaakaar ni machine yéen ñuy fekk France. waaw amul fi hmm. ñaari entraîné France ñu ngi te am na lu am fi te amul fa. Balla Gaye dem na ba ñëw compte ful contact. du def contact koy bëre. foofu amu fa. centre boobu ñu ko yóbbu centre boobu ñan lañ fay formé. mais non seulement physiquement mais dañ préparer bu dee basketteur nga ñu basketeur loolu la bu dee athlétisme ngay def ñu entraîné. mais est du état bu war. moo taxoon mu. mais mënu ko am fii yow bii ci ngoon yow tamit parce que fii ñoom ñëpp ah. ñoom ñëpp lan lan fii nga tax yaa nga. non partage di nga sori di nga mën a wéet di nga mën a gérer sa bopp. tout ça mais loolu du ñun de gis nga Bruno Metsu. moom bokk na si di taxoon mu réussir deux 2002 boobu. yàlla na ko suñu borom dolli yërmande. amiin joueurs yi. mu jëloon leen def leen ci environnement sociologique gu Sénégal. Ah. ñuy ñuy fanaanandoo di naanandoo ataaya. di di ànd di lekkandoo xooñ. yooyu dafa bokk si yi tax ba yow li leen di jox doole. doole collectif. doole collectif effectivement mais euh, am na loo xam ne sa sociologie moom boo ko bàyyee rek. boo ko bàyyee léegi soo moytuwul dëgg la ngay jàpp loolu moo lay nit dem na entraîné dem bitim réew ñëw fekk fi ku demul fenn daan. daan ko loolu ah, loolu wér na euh, mais mbër yi xaalis boobu ñuy yàq tamit ñoom war nañ xool tey euh, nan lañ koy nan lañ koy gën a ñoŋalee parce que mënoo dëkk fii géejawaay yëmbal caaro nit ñi soxla foofu xaalis yu ñu war a investir nga jël xaalis yoo dem sànni ko France mais nag mais hmm. ah, fii mun nañ ko fi def. waaw mun nañ koo def fii. mais xaaj Bekaay xaaj Bekaay non non man mun naa leen ko tere xam nga man bëgg naa leen ko tere xam nga lu tax Espagne la nekkoon non xam nga lu tax. waaw nga lu tax Khadija mooy ñun tey dañu war a yegg niveau yooyu mais pour ñu yegg niveau yooyu il faut ñu tàmmali ko. Mhm. il faut nànk-nànk ñuy lëwatoo di ko kii tey xam nga bu boo waree pare sa comba yow nga dem woo ay nit ne leen hey fii lañ ko war a defee mais nag jox leen ñu yoon wi nga xam ni fii dinañ mën a def euh, préparation optimale. li may li ñu doon suufalanteeg MLK mooy est-ce que peut-être choix bi mu def pour dem extérieur nekkul woon peut-être pour raxas li nekk ci yaramam def cure d'autant ci li mu jógee quoi affaire euh, comment ça s'appelle yi ko doon jiiñ ak affaire yooyu noonu. waaw yooyu nañ ko wax dafa dem bu fekkee da nga dopewu ba soxla dem defi cure mais nga wax ko. mais après yoo xam ne dopage mais que dopage. est moo tax ma ne bañ ko doon jiiñ. parce que protéine yenn protéine dopage sportif mooy jël protéine. moo tax ma ne ko hmm. lañ ko war a da ngay gis ku yor potam. <laughs> pour dem pour moom yooyu lay may doole. maa ngi maa ngi fi doom voilà mais fekk na yow yaa ngi ren koo xam ne xam-xam dafa maa ci wàllu mu ne ma nit ku normal. Hmm. te jëlul dara mënul yegg ci cent et quelques kilos loolu ala kulli loolu mënul parce que dañuy jël dara mais mais Hadj Bekkay ñoom tey ñoom ñoo war a professionnaliser bi ñu ngoone ñoo war a professionnaliser seen bopp si seen suivi ak seen euh, liggéey ak médecin du sport. Mhm. waaw tey mbër boo dee professionnel. loolu da nga ko war a am sa médecin du sport. même mbër yi amuñu yooyu. non am nañu ci am nañu ko mais mais systématiquement amuñu mais bon bi ñu war a jeexalee. bi ñu war a jeexalee Khadija bu mhm. solo. xaaj bekaay sànq junj nañ ko loolu tam am na si musique bi mooy am na ñoo xam ne dañu nekk si kaw ñoom la ñuy dégg Waly Seck Pape Diouf Youssou Ndour mais instrumentiste yi léeg duñu am dara. c'est important. yaa ngi dégg xaaj bekaay da ko wax tey mun nañ lim fukki mbër yoo xam ni dinañ dund si làmb ji mais si ñeenti junni licenciés yi xaaj bekaay ay junnee ngi yoo xam ne dëgg dëgg ñeen yi boo ñi ngay wax ne am nañ cent mille francs deux cent mille francs par benn combat par six mois. am na ñoo xam ne amuñu dara ba dara. booloo loolu tam loolu tam dafa bokk ci li CNG war a liggéey. mënoo hmm. tëgg làmb cent million hmm. premier combat doon cent mille. différence hmm. boobu. dafa ëpp des fois mu am mbër moo fay deux cent mille mu indi public bu ëpp ki nga fay lool. billaay des fois. nga gis ci xale boo xam ne vraiment nga gis mbooloo mi mu lay indi nga xam ne kii. vraiment indi na la alal ju bari joo xam ne teen fayoo ko. jamono yi si mënoo ko ko fay loolu dafa ñaaw dafay yàq li nga xam équilibre bi dafa. dem déséquilibré dëgg la dafa mais Hadj Becaye loolu xam nga c'est un vrai problème parce que boo jàppee euh, li MLK di wax mbëru 100 kilogrammes yaa ngi dégg muy entraîner war a lekk war a naan war a def ay débat déb te amul dara. mais léegi nan nga bëgg mu dundee. waa et puis sax loolu sax dafa bari Tunkara li nga wax léegi mbër yi ñuy dund ci làmb. néew nañu. motuñ boo fëkk daal fi lañuy yem bariwunu ñi ci liggéey oustaz di ci dee guddeeg bëccëg te amuñu ci dara moo ëpp. Mhm. parce que li la koy won saa bu mbër bëree ba pare bu ñëwee toog sa wet may ma ma gërëm la lay wax. te am na ñoo xam boo leen tuddul. boo delloo koñ ba. Hmm. dootuñu la jox cent franc. Hmm. parce que ah ñoo ñoom dañuy politique. Hmm. ku leen tudd leen bëgg. <laughs> ah non ñoom dañuy politique ñoom dañoo bëgg nga gërëm leen. bu dul benn du ñaar bër woo na ma jooy. mon père bi nga waxoon naa tiw da koo dagg. ma ne ko baal maa de karaajo la moo ko dagg. du man comprendre nga ko man comprendre naa ko parce que. am naa ne kooku il faut mu tudd ko biisu la biisoo ko jox añ moo ko jox reer moo ko régleel problème am bu ñëwee ba foofu tudd ñëpp fàtte fàtte mm-hmm. biisu mm-hmm. ah bu demee koñ ko biisu dootu loxo te biisu dafay sox dafa soxla arrondissement bi xam nga mi ngi ni bëgg nekk meero meero Khadija mooy jeexal ba tey bi parce que sànq muy wax ni Modou Lo euh, ba muy ñëkk a bëreeg Balla Gaye ni mu bëree woon c'était pas réfléchi c'était pas mûr jàpp nga ni entre temps il a mûri am na expérience bi war pour sëgg bëree combat yow ki may supporté du ma ko wax wala bu micro yi waxal HBK yi. non ça parce que euh, Tunkara. Hmm. Khadija Modou Lo booba dafa topp Balla Gaye ci rythme am. arbitre hmm, comme pas vingt une seconde. Hmm. Modou Lo waru ko bëri ko ci daan. c' pas normal. kooku nekkoo fi. arbitre bi warta sifflé Balla Gaye loolu ma ne Balla Gaye seetul combat yi mu ay 40 secondes ay une minute bariwul. parce que noonu lay bëree ñoom yi mu daan hmm. noonu lay def ak ñoom hmm. Hmm. bu ci nekk Modou Lo bi arbitre bi ne daf ko gëdd Modou Lo wuyu ko te bu la gëddee mais nga taxaw nga arrière. Eh, mais arrière am na ci lamb. waaw lamb stratégie la tamit. stratégie la mais mu gëdd ko mu doo fekk ko. mooy am et puis boobu Balla Gaye temps boobu ku mu bëril moo am parce a bëri am souplesse am rapidité ci bëri. aywa xaaj Bekaay nga moom suñu borom da ko may euh, mu am xam-xam si mbir mi dafa yag di wax ne. mais léegi nag ah Tunkara baal ma de léegi nag combat la de. Ah, bii moom bul Mm-hmm. waaw na nga koo kuy supporter. bijou yow xam nañ foo far li ngay wax xam ne combat bi combat. bijou xam na mais. Euh, xaaj beneen nga baal ma de maa ngi jégalu bu baax moom mooy. charlatan bu ñu la mën a tuddee noonu ñi nga xam ne dañuy annoncé pronostic. xamuñu dara mu yeggale. Ah. dañuy wax rek xamuñu xoolal mbër mu ci gëm yu charlatan. bu ah. dugg ci lamb ji def sa bopp bi charlatan bi nee na dama koy dóor mu daan. Hmm. dinañ la dóor dóor dóor dóor ba. <laughs> yéen yéen Selbé Ndom ngeen bëgg ah, tur am na benn ancien ñeneen ñëpp tur. Eh. ko <laughs> demal du la gis. Dakar suivre nga affaire Kalidou eh. Koulibaly. mu ne ko du la gis xaaral <laughs> du la gis. Eh. ñu ne faaf waaf rek <laughs> waa ji ngàddu <laughs> mu signalé sëñ baa ngi ci tuus bi mu ñëw fekk ci li mu ko wax ñu ne ma ko wax hmm. <laughs> moom moom it waroon na ngàdd sëñ bi rek moom xoolal yow kii nga ne du ma gis kii rey na ma ji yëpp dafa ne dina ma rey boo ci waxul waaye moom bu amoon daan ko aaj bekaay soo amoon fulla ah. moom Kourfeñ gi ñu ko gi ko gi ñu ko yónnee. mu yónnee ko sëñ bi voilà <laughs> entraîné wu ko dafa gëmoon sëñ bi. moo tax Balla Gaye Modou Lo ku ci yaakaar. sëriñ non mais affaire sëriñ yi yëfu yëfu dof la xam nga lu tax. parce que ku fi indi sëriñ. ñaar ñi ñoom ñaar ñëpp indi nañ sëriñ te kenn ki dina daal loolu mooy sëriñu kenn ki euh, yëfu kii la mais am na lu booy bi kii si wax Ibrahima waaw Kalidou Koulibaly la doon mais hmm. a racisme bi ñuy wane ci football ci terrain yi ci stade yi fépp ah do la xew a rek mais ñoom ñëpp raciste Espagne France France ñoom ñëpp raciste hmm. mais loolu dafa ñaaw dinaa gis sax tubaab yi seen émission yu bari yu seetaan ñu ngi koy koy wax. Mhm. mais ñun tam Sénégal nam ci wax. Mhm. mais buñ ko waxee waaw waaw ko waxee et après. et après dina am lu mu faj. lan du faj dara duñ ko ba. non c'est-à-dire sanction yi. moo des lu mu faj. non li nga wax wax nga dëgg ah. Kalidou Koulibaly. même ñoom ñoo ñu ci wax. dans un mois dina amaat benn. Ah. li nga wax effectivement tu as raison. parce que xam nga euh, racisme moom complexe de supériorité la bu nekk si si nit xam nga lan moo si doy mooy bu fekkente ni ñoom lu leen arrangé wul la ñoom tubaab yi dañuy jël sanction yu sévère parce que gis nañu fi benn jour loolu yàgg la si ñu euh, nazi la def rek il a été rayé définitivement du football ah donc euh, carrément léegi lan moo gën a garaaw diggante ñaar yi toroxal doomu aadama ak koo xam ne sii ñu nazi la def. waaw ah euh, delloo njukkal euh, Haaj Bekaay Haaj Bekaay loo jeexale li may jeexale mooy namoon naa leen ah. dafa jeex teel a da ngay dellu si da ngay dellu si Haaj Bekaay da ngay dellu si. ah da ngay dellu si. Ah? non Tunkara. est ce que mos na fee jóge vraiment wax naa la ko au début c' est du sérieux quoi. Mhm. waaw 2S c' est vrai que nekkatuma fi. waaye jóguma fi. 2S mhm. c'est la télé de mon cœur. fii damaa bokk ci li ko defar. Oh, loolu nag waxu politique la rek. non non man ah. mais réalité bi mooy dem nga. waaw dem naa kay. sama bopp laay liggéeyal. ah moi-même. si naka nan ngay sa bopp léegi. waaw damay ah, ah, ku wax feeñ. <laughs> dama koy wax fii de. ku yoddu sa kër xamal naa la te yoddu sama projet yi ma hmm. ci média rek la jëm. macha allah nëbbuwuma dama bëgg rek. Sénégal FM ah ngeen ñaan Sénégal TV. ah bu ngeen amee dara lu ngeen def bu ngeen ma wooyee ma ñëw. xam ni man fi bokk. waaye nag ni ngeen comprendre ne aussi damaa bëgg a mel ni mhm. la te yow fii France nga jóge. Wuduru Grand Dakar man ma jóge Grand Dakar. mu ñafe xool ko fu mu jóge bi mu ñafe ba toog waaw du ma may ma ne ma def noonu. ah ah. c'est ah, du sama patron musul nekk sama patron loolu moom xamal leen ko. Alaaji Njaay c'est mon grand frère waaw suma grand frère jabaram mare mere woon nga ma mais <laughs> bu wax dara sama xarit nga aywa delloo njukkal xaaj euh, bekaay mais sànq dafa wax euh, wax bu am solo